sakartu li annahu xat saaxani li watanin bi nafa maaxani waxaadani lay bi taxalli min baadi ma xasaba bi taxalli wajalani fi ilal ulumi wal fawsa bil amali bil maalumi summa salaatu bi salaamin tabia ala lazi xasdiyan atabia ala lazi man bi maradi ixtada fi sirri wal jahri yakunu muhtada huwa lazi haajarani lmadina bi amri rabbihi fasaana diina وزيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى سفيع وعلي وسهبه النجوم الخائر النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وآب خيرك في الدارين لا أهاب ويلني يا بر يا كريم داع عن سكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا بما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد سرواك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tey jii ci màggal Serigne Abdoul Ahad Mbacké nekkoon ñetteelu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul Euh, liggéey liggéey bu yaatu ci dëkk bu sell bi di Touba waaye liggéey ko ci biir yoonu murit waaye liggéey ko ci itam ci umma islamique Serigne Abdou Lahad Mbacké di koo xam ne kenn dutu ko présenté ngir taxawaayam bu rëy bu mu amoon ci diine l'islam mbokk yi tey jii nag nu fas yéene ànd ñun ñëpp ci talaata ji ngir fàttaliku jàmbaar jooju nga xam ne mooy Cheikh Abdou Lahad Mbacké fa qultu saa sukrin wa saa tawassuli bil Mustafa safi mbokk yi kon ni ma leen ko waxee woon léegi rek gis ngeen noonu ziar bi nga xam ne mbokki taalib yaa ngi koy am ak Serigne Sidi waaye itam am na fi benn exposition boo xam dañ ko fay def lu ci ëpp ci discours yi Serigne Abdou Lahad itam ñu wane ko fi euh, ñu ngi ak kenn ci kilifa yi nga xam ne ñooy li saytu mbir moomu euh, di Serigne Ali Abdou Lahad Jaxate Serigne Abdou Lahad euh, ginnaaw bu la fekkee fii. nga ànd ak euh, bokki taalibe yi bu ñu la bàyyee nga nuyu bokki taalibe yi lan mën a indil ci exposition bi nga xam ne moom ngeen fi def tey naka ngeen ko waajale jërëjëf sëñ Moustapha sëñ Mor ngi lay nuyu di siyaara di nuyu bokki jullit yëpp di ñaanal Cheikh mu yàgg fi loolu te wér ñaanal Serigne Sidi ak njaboot Cheikh Abdou Lahad di ndokkeel nag tey mbooleem jullit umma islamiya ndokkeel senegal ci bis bii nga xam ne ci la sunu jàmbaari jàmbaar yi Cheikh Abdou Lahad Mbacké feeñoon jamono te waaye juróom waxoon te waxam juré ja ne kii de am naa ci yaakaar yaakaar jooju nag mu dëggal ko liggéeyal xeet yëpp liggéeyal islam kon loolu moo waral tey nag bisi bu dellusee na na ko sëñ Tuubaa digle woon def ci ay teraanga yu rëy euh, digal mag ñi ñaanal ko ñun ñëpp ñu ci barkeelu di ñaari fan juróom-ñett ci weeru kor yi li mu ñëwee nag bi nga xamee ne wari nañ ba am ñaari fan ci lañu sëriñ Sidi woo ñooy commission culturelle bi yàlla def ne man maa ne seen bopp maa ne ci bopp bi ànd ko ay jëwriñ ay kilifa yoo xam ne ay xam-xam lañ te itam ay bokk ay bokk lañ te yàgg ci seen i wayjur yàgg ànd ak sëriñ bi ñoom lañu sëriñ si di booleel ñu tàmbali waajtaay wi ci fànn yi bari nag waaye bii benn la ci mi exposition bi ngeen gis eh, at mu jot dañ koy amal li si jubli mooy gën a jegeel eh, njàngalem sëñ Abdou Lahad nit ñi bañ mën ko gën a mën a jariñoo ndax moom mi ko waxoon eh, dem na te bind dafay lu am solo loo xam ne day day des loolu moo tax ñu koy bind nii ci mbooleen ci langue yu bari bokk yoo xamante ne bii ku fi ñëw rek langue boo ci dégg da nga mën a jariñu ren nag dañoo jël benn thème ñu koy wax Cheikh Abdou ak alxuraan Cheikh Abdou Lahad ak moom mooy lépp ni boo yàlla li ngay jaamoo yàlla yaa ngi koy jaamoo ci alxuraan ak sunu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo dem murid nag ñun moom sunu kee sunu ndàmm mooy xasaayid Cheikh Ahmadou Khadim yi loolu moo tax na ñu boole yaar yëpp sëñ Abdou Lahad ak alxuraan sëñ Abdou Lahad ak xasaayit ku ne gis na réewum Sénégal at yii ñu jën ba ren ni fi alxuraan gën a yokkoo ni mu gën a jëmee kaw nga xam ne réew yi même fa fa alxuraan wàccoon sax léegi si dama jàpp ne Sénégal ci boppam ñooñu dàqatuñ ko dàqatuñ ko alxuraan ba ñu mën a dem ci réew yi ci ay concours dañ fi indi ay ndam yoo xamante ne bii macha allah loolu nag euh, xëyut xëy sotti dafa am fu mu tàmbalee mag ñi jaaroon. ñoo ko jëmbat euh, génération yi muy ñëw di ko suuxat ba mu agsi ci ñun wala moo tax nag fàttali démb wane mag ñi ni ñu taxee woon ku mel ne sunu jàmbaar ji Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ni mu taxee woon ci alxuraan loolu day am solo lool dana tax ñu gën a ñu gën a jàpp ci ban car bi ñuy jàpp mu gën a dëgër loolu moo tax ñu def ko sëñ Abdoul ren alxuraan sëñ Abdoul Ahad xasaayit yaakaar naa ne boo gisee li mu ci liggéey euh, ndax ci jamonoom daraan def ku ma sa bind kaamil boo ñëwee mu xotti lay mbasee jox la xaalis bu na gàññ ba tax nit ñi bare sawar ci di bind ay kaamil di addi kilifa yi doomi kilifa yi mu daal leen woot leen fat ci keesam yi di leen bindloo ay kaamil kaamil yooyu nag bare gi mu bari dem ba bari moo jur sax daaree kaamil ji ndax daa demoon ba xëyatu ci ay néegam yi ci këram mu mujj mu tabaxal ko fii kër daaree kaamil kaamil yi ñuy bind yi ñuy bind ci réew mi doyatu ko mu wut ay millions yi bare bare bare Euh, jox ko sëñ Mouhamadou Mahamoud Niang yënd ko ci réew arab yi mu dem wuti ay kaamil waaye yëmut ci ay kaamil wuti ay téere yi xam-xam yoo xam ne danañ ko mën a jariñoo moo xam fiq la diis mboolem loo xam ne rek ab jullit dana ko soxla woo mu dem jëgg indi ko ngir bu ëllëgee kenn duutu am soxla di génn réew mi ndax boobu am na leen la muy fàggu muy muy teg bii di di muy euh, université bi ndax soo bëggee jàng itam te bëgg ne bu kenn génn réew mi il leen ay jumtukaay yoo tax dana tax kenn génn réew moo tax nag fu xam-xam am rek ci àddina bi si Abdou Lahad jegeel na ko indi ko yëmutoon ci loolu daa wutoon ay ay ay ay ne machine bu ne ma ngay jar juróom-ñaari million jamono jooju kon loolu xaalis bari la waaw ah, alxuraan jaraloon na ko loolu xasaayid jaraloon na loolu mu jënd ko teg ko fi di móolal boppam waaw móol yi doyu ko mu ni ma wax sànq mu génne ay million dem jënd indeeti ci kon kooku ku ne xam na ne kon jàngaloo na kon kon ñi muy jàngaloo amatuñu aw lay amatuma téere moom du am mënu booy bëggee gëstu loo xam ne amul fu ma gëstoo boo demee ci bibliothèque ba loolu dong lay jëriñ ba accès toog ñu ubbil la gës li nga bëgg gës ba noppee demaat loolu nag mu def ko addee sëñ Tuubaa fu may nekk sëñ Tuubaa yaa moom ah, kon nga euh, defar université bi àll bu yaatu boo xam ne ba tey jii mën euh, mënaguñ ko xaajal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fa yàggati wér projet bi nga xam ne moom la naal te muy ay 37 milliards loolu ci naal la Sëñ Abdou Lahad la woon moom lay àggale bi mu koy koy teg xeer yu tegaat xeer yu ngir yokk ko wax na ko kon loolu moo waral ñu ñu ñu ñu ñu def euh, exposition bi ak itam euh, mboolem ñu ngi doon jëflanteeg ak torox yi muy yeneen tarixa yi ak même wàllu état ñu daan jëflanteeg ñoom loolu lépp boo ko def ci biir ak ay xekam mooy ay wax yu gàtt yu am njëriñ yoo xam ne soo ko boo ko déggee rek ci sens sens da nga ko daal di mën a jàpp daal ci mën a jëfee fii yaa ngi gis ma naan gore leen gore leen as gor day nangoo ñaq day day nangoo jaamu yàlla kon ndax ngor moom fi rek la fekk. ngor te la islam fekk kon noo mën a toll rek war ngaa gore te ku gore it soo bëggee sa ngor mën a sax da ngay nangoo ñaq ndax soo ñaqut sa léegi sa ngor dem ndax ku la mënal sañal la yàlla ne ka la war a sañal moo tax mu ne as gor day nangoo ñaq day nangoo jaam yàlla di wax lu bëree bari naan adduna de yëngu rek la baaxoo waaye lu yëngu-yëngu ba rëy rëy rëy dana mujj na teg ba mel na mos yëngu soo bañee nag bu yëngu ba dalee yëbaale la dara su dee yëngu ne na nga xel a baax xam nañ ci yàgg yàgg ci dal lay mujj loolu nag yaakaar naa ne fi mu toll nii jamono ji ñu toll ci liñ ko war a gën a bàyyi xel waaye sëkki àdduna bu yëngoo rek nga ànd ak moom bu ne tekk nga rus kon loolu ay ay ay baat la yoo xamante ne bi yu am solo la yoo xam ne war nañ koo ku da nga fi mën a jariñoo euh, loolu nag euh, lu tuuti la ci lu bëree bëri loo xamante ne bii ab ci rek waaw waaye daal macha allah euh, commission bi yaatal na ndax dem na ci télévision yi bari def ay émission dem na ci rajo yi bëree bari ci local bi ak ci. national bi dem na ci sët yi sët yi bëree bëri bëri yoo xam ne dañ leen a jël ñu ànd ak ñun liggéey bi ba ba léegi lépp loo xam ne ne bi liggéey nañ ko dañ leen koy jox ñu jàll la ko ci kon yaakaar naa la fi mu toll daal euh, lay amatul ci ne euh, amu ko ku ma roy loolu jeex na waaw loolu nag moom ci ndigal sëñ bi la loolu moom sëñ bi sëñ bi toppam comme moom mooy kilifa gi kilifa kër sëñ Abdou Lahad lépp lu mu santaan mu seet ba gis ko rek ba wax ko rek ñun duñ ca commentaire dañ koy waxee bàyyi ko ni mu ko diglee rek waaw waaw waaye amut leen ndax waxul lu tax moom moo seet rek ne du ko def kon loolu moom foofu lañ ci mën a yem <laughs> jërëjëf. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad jaxate jërëjëf mbokk yi ni topp dégg ngeen euh, leeral gi mu ñu indi ci exposition bi nga xam def nañ ko fii. Euh, thème bi ñu tànnoon mooy sëriñ Abdul Ahad ak alxuraan sëriñ Abdul Ahad ak xasida lépp benn thème la ndax alxuraan ci biir xasida xasida ci biir alxuraan la ko sëñ bi jëlee kon yaakaar naa dara génnu ci euh, alxuraan waaye dégg nga itam discours sëñ Abdul Ahad yi li mu doon gàtte waaye li mu doon dëggoo ak li mu doon jariñe ñaar yi mu ci jot a jàngale rek gis ngeen li njariñ li dëgg-dëgg kon nag jërëjëf sëñ Abdul Ahad kon mbokk yi ñu àndaat ak yéen dugg ci biir maag أنت المجيب والكريم والخريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بصير وكثيرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفي عنك دي والدس بتنفي جماعة تخيم الصلوات الخمس دربا يا حكيم wanajina min zarri hada ngeen def mbokk yi ni topp kon ci subaak léegi bi ñu bàyyi ko fële ci kër Serigne Sidi Mbacke bi Cheikh Abdou Lahad noo ngi fii ci kër Serigne Moustapha Mbacke mu Serigne Abdou Lahad bi nu ñëwee gis ngeen siyaar yi nga xam ne jot nañ ko fee jël kilifa yi nga xam ne ñëw nañ nemmee ko si Serigne euh, Moustapha bokk ak moom bis bi ñu mën cee ràññee Serigne euh, Moustapha Mbacke ibn Serigne Abdou Khadar ak yeneen i kilifa yi fasante ko waaye dama leen di bàyyi ak euh, ñi nga xam ne ñoo yor commission culturelle bi ak commission communication bi ñu ànd ak ñun ci liggéey bi ngir leeral ñu fan lañ ci toll sëñ Abdou Lahad ginnaaw bu ñu la bàyyee nga nuyoo bokki taalibe yi sëñ Moustapha ginnaaw bu ñu la bàyyee nga nuyoo bokki taalibe yi euh, yan kàddu nga ñu indil ci fii ngeen toll yéen ñi nga xam ne yéen encadré commission culturelle bi ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki istixaama ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di leen jaajëfal nag bu baax di rafetlu seen taxawaay ci yoon wi ndax wax dëgg yàlla lislaam bi ngeen fi woote ndax day mel seen moom li mu wund nga a nga cee góorgóorlu bu baax a baax ñu leen sant bu baax a baax comme ni nga ko laajee ñuy màggal tey bisub Sëñ Abdou Lahad muy bis bu mat a fàttaliku ndax Sëñ Abdou Lahad moom jëmm la joo xam ni damay faral di wax ni euh, képp ku bëgg lu baax war ngaa fàttaliku bisam bii ndax bis la boo xam Seyxul Xadim radiyallahu anhu moo ko njëkk màggal ndax koo xam ne bi nga feeñee sëriñ bi dajaa wone mbégte def ci teraanga joo xam ne mosu koo defal la ko jiitu woon ginnaaw bi xamuñu ku mu ko defal daal di wax ne am naa ci moom yaakaar euh, te kenn ku ne mën naa xam ne Cheikh Abdou Lahad yaakaar ji Sëriñ Tuubaa amoon ci moom matal ko sëkk tey nag fii ngeen ñëw di kenn ci ak njabootam di Cheikh Moustapha Sëriñ Abdou Lahad di koo xam ne ni ngeen ko gisee rek yaakaar naa kër gi moom fa tabaarakallaa mat na sëkk yi tey ñun nag dañu dénk commission culturelle commission culturelle lépp lu jëm ci njàngum alxuraan mi njàngum xasida mi ak mboolem waxtaan yi nga xam day am ci màggal gi foofa nag wax dëgg yàlla dañuy sant bu baax di sant mboolem sëriñu daara yi ndax gis nañ taxawaay yi ndax am na ñoo xam ne ba màggal gi dese ay weer lan tàmbali seenub liggéey ñenn ñi tey ñëwaat ànd ak ñun ànd ak andi seen i donga nga fii fii ma wax yow nag dina amagoon ci lim kawe na njort lool lool lool te aggun sax ci dajale lim bi yëpp yëpp loolu lépp nag day firndeel ni ki ñu koy defal mooy borom alxuraan ndax euh, lim liggéeyee Serigne Touba ci alxuraan ndax Serigne Touba moom la suñu borom jox alxuraan malakañu alxuraanu tam lii kan ya la wax yàlla moom la nam alxuraan moom ko sax dàkk waaye Cheikh Abdoul Ahad kenn ko ne xam ne Serigne Touba defal na ko ci xaas noonu itam nañ ko jundalee ci xasida yi ndax xasida yi itam damay faral di wax ni tey jii ba yaatoo ban mën koo jariñoo waxee na a yaatal def def lu mel exposition boo xam dañ koy def waxtaan ci lenn ci dundu Sëñ Abdou Lahad nga xam ne boo xoolee fee am na benn documentaire boo xam dundu Sëñ Abdou Lahad lañ ci def def ko ci wolof def ko tam ci français ni noonu itam euh, am na ay waxtaan yu am solo yoo xam dina am ci kii bi ci guddig màggal gi tey jii Sëñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan bu Daara Xudoos nga xam yaakaar moom du ko ni présenté moom moo koy def thème bi ñu tànn nag mooy Sëñ Abdou Lahad ak jom loolu liñ ci mooy mbokki taalibe yi gën a xamaat ki ni màggalal waaye nag bu ñuy fàttaliku nit it du caagi ñëw rek yéem ko ni Sëriñ Abdou Lahad kat jàmbaar la jàmbaar la waaye dëgg-dëgg mooy fexe ba roy ci moom fexe ba roy ci moom ndax mboolem yonent yi suñu borom daan yéen daa jublu rek mbokki taam julli ñu roy leen ndax dégg nga ci alxuraan suñu borom wax ni laqad kaana lakum fii rasulillahi iswatun hasana kon daa def yonent bi sallallahu muy royukaay bi gën bi gën a mag kon mboolem gaa baax yi muy Seexul ko andi ngir ko ndax damay fàttali wax nit a baax ba jomb roy bu ñu fàttaliku Sëriñ Abdou Lahad loolu rek Euh, am na tam ay plateau yu ko jiite woon ndax defoon nañ benn waxtaan ci média yi nekk noonu tam am na euh, waxtaan woo amoon na fi barki démb rek ci biir kër gi te sëñ Xaadi Jaxate Borabita jiite woon ko nga xamee ni moom waxtaan am am solo indi ci dund Sëñ Abdu Lahat waaye nag euh, Sëñ Abdu ni mu dundee woon Serigne Touba radiyallahu anhuma mu def ko tey jii noonu la ko fas yéene wéyale waaw waaw. jërëjëf sëñ yow xam ne yaay wàllu communication lan yan kàddu ngay ñuy leeral fan ngeen toll ci communication asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi siyaare mbokki tali bi di siyaare ñi sibir Istikhama TV di lañ jaajëfal bu baax baax man la membre euh, communication Thierno Diakhaté waaw communication wax dëgg yàlla ñun bi màggal gi desee ay fan di jours ci lañ commencé liggéey bi fexe ba def ay communiqué ci rajo yi RTS ICAP ak bépp information boo xam ne war na jëm ci màggal gi ñu fexe ba jàll ko ay affiche ay baas wala communiqué ci rajo yi ak ak woote ci daayira yi ak ñi nga xam ne ñoo war a yëg màggal gi ñu yëgal leen ko mu ñu nekk bitim réew ak ñi nekk si sous-région bi biir Sénégal ñu fexe ba ñëpp yëg màggal gi mën a ñëw ci biir màggal gi wàccaayu màggal gi nag lépp luy communication ñun ñoo ko jàllale ci màggal gi muy nekk liggéey bu fasanti ko ba xam ne ñu bari si ay membre ak waa culture bi te bokk nañu ko di ko liggéey xam nga liggéey communication dafa dafa yaatu culture ci biir communication moo waral ñu liggéey ci liggéey bu am solo ba ñu gis màggal gi li fi am ci information boo xam ne jàll na ci rek waa communication ñoo ko jàllale muy wàllu affiche wala ay bâche yoo xam ne ñu ko takk nii ci biir màggal gi muy rafetaayu màggal gi ñun ñoo ko yor muy affiche yi muy ay ay autocollant yi def ci oto yi ñi nga xam ne nga koy gis oto yi ñu yor ñi nga xam ne ci communication lañ nekk si wàllu organisateur ak wàllu transport oto yi ay autocollant lañ ciy def yoo xam ne ku gis rek xam ne ñii waa Kër Serigne Moustapha Abdou Ahad loolu mu nekk liggéey bu fasanti ko boo xam ne bépp membre boo xam ne ci communication lay liggéey ak si culture ñoo ko bokk liggéey ko ba gis taaraayu magal gis nañ ñuy sol ay silé bokk ci communication bi chaque année nag loolu la ñuy def ñu sant nag fédération Sahadatou Mouridina li xidmati Cheikhul Khadim seen taxawaay bu am solo ci liggéey màggalu Cheikh Abdou Lahad ci kër Serigne Moustapha Abdou Lahad mu liggéey bu fasante ko commission yu na bétail am na cafétéria am na sécurité am na protocole am na euh, organisateur ñoo xam ne ñoo yor wàllu base bi ak waañ wa mu liggéey bu fasanti ko boo xam ne ñun waa communication ak fédération boo xam ne mooy suñu njiit euh, membre yi nga xam ne commission yi nekk ci biir liggéey bi yëpp ñun ñoo ko am amee fii ñu leen contrôlé képp koo xam da nga ñoo soxla wala xam yéen ñi nga xam da ñëw ci biir màggal gi soxla liggéey si ñun ngeen di muy communication muy liggéey boo am solo ku fi ñëw soxla nit wala am loo léer rek da ngay jaar sa communication ñu mën la ko yëgal mbooloo mi ba nga sa yëf yooyu bu dee da nga am looy laaj wala fekkee ne am loo xam ne da nga ko muy xale wala wala sa portable wala lu mu mën di demee da loolo jàppandi xam ne liggéey communication moom dafa yaatu yaatu wax moo yor màggal lépp loo xam ne li màggal gi rek communication moom moo ñi leen sant nag yeen Istikhama team bi ci liggéey bu am solo bi ngeen def ci màggalu si Abdou Lahad Cheikh Abdou Lahad moom wax dëgg yàlla dafa nekk koo xam ne adduna bépp ko xam ci pastéefam ci dëggoom ci mbaaxaayam ci koo xam ne bu waxee ñëpp bàyyi la ñu jàppoon kon nag ñuy ñaanal yàlla yokk leeram di ñaan nag Serigne Moustapha Abdou Lahad mi xam suñu yaakaari tey ëllëg yàlla suñu borom yàggal ko fi lool ak njabootam waaw ñu daal li ñuy wax nii wax di yàlla si xol lañ ko waxee ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal fédération Saxadatu Muridina li xitma di Cheikhul Khadim yàlla taxawu leen ñu gën a am doole ba li ñuy wundu lépp di ko yaakaar si Cheikh Abdou Lahad suñu liggéey mën a tasaaroo si àdduna bi yëpp waaw loolu daal moo nekkoon suñu yéene bika ya mu'izu wal tajma'an bayni huna wa bayna ma yasughni ilayka haythu lima wa kun lama anka yawqu ya badi فلتفرقا بيني وبينه سري أنا الذي أسلمت وادي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت أسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا تاب يا بر أنت ربي العزيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا أيها أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناس يا بر أنت ظلمها للواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت زنعتا يا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت سندايا نافع وأنت أنبيا فلا أخاتم أنت الذي تلمي بك وداك وأنت أنبيا فلا أبقي سواك فهمي ما يأتي يكن إذن ناسين عن كل زيناب وذور كلين والتكفني يا ذا البقاء والخدم azalazi masa ilaya bilxadam wasara man yarkabu saasilahi wasara ma yatiiru sa janaahi wasara man yajlisu bilkalaami wasara si dajin wa si xiyaami wasara man yanfusu fi lcuqudi wasara ndaxte li tax xolam sedd ci mooy kenn ku ci nekk boo amee sa ñooñ am say taalibe boo sañoon da leen duñ leen joxoñ nee na duñ leen joxoñ te duñ leen duñ leen clamé duñ leen accam duñ leen jëw moom li ñu koy dolli rek mooy moom ñoom ñu def lu dul ndigal ndax ñoom ci ndigal ndigal rek lañ xam ci ndigal lañ juddu ci lañ toll nii kon nag sëñ Tuubaa rek la ñuy déglu sëñ Tuubaa rek mooy seen ndigal lépp lu ñu digal ci la ñuy ci la ñuy dox ci lañ leen di seen loolu daal moom moom maa ko ci dolli waaye nag xam a xarit ànd na ci ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel kon ci suba ak léegi ñu dooree liggéey bi fële ca kër kër gu mag mu kër Seex Abdou Lahad Mbacké ci taxawaayu Serigne Sidi Mbacké moom Seex Abdou Lahad ñu koy ñaanal bu baax mu yàgg fi wér gannaaw bi itam topp ngeen ñu ci kër sëriñ Moustapha Mbacke ak kër sëriñ Cheikhouna eh, noo ngi fi itam nag ci kër sëriñ Makhtar Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bi nu dikkee itam fekk nañu kilifa yu bari ñëw ànd ak moom liggéey bi waaye nekk noonu itam mbokki dongo yi nekk noonu itam kuréelu Hizbut Tarqiyyah ci njiitu sëriñ Youssou Diop waaye dañuy bàyyee kàddu gi rek ak sëriñ Makhtar Thiam mi nga xam ne moom la jox kàddu gi su daaneele kàddoom rek sëriñ Omar Ndiaye toftal ci kàddu sëriñ bi ñaanal su ko defee itam nii lañ ko defee woon daaw dafa mel ne ñu barkeelawaat ko ndax albarakatu lil mutabaraki bisimilahi rahmaani rahim barke sëñ Tuubaa Seex Abdou Lahat mi ñu defar ñu ngi siyaare bu baax tey sant di leen sant ci kàddu gi ngeen ñu jox di jéem a andi kàddu yu gàtt rek ndax waxtu yu mayewu ko te liñ ci war a wax lépp bari na li ci jiitu mooy sant sëñ bi nga xam ne ci moom ngeen ñëw tey ci màggal gi di ko sant bu baax a baax tey seere taxawaay bi nga xam ne moom la am jàppale bi mu jàppale mbooleem dongo yëpp ba bés bi mel nii mu mel ci war lim ci war a def lépp def nañ ko kum ci war a dimbali dimbali na ci ba sa taxawaay rafet na tey ji kon nag bés bésub sant la di sant la tamit sëñ Abdou Lahat mi nga xam ne moom moom lañuy ñuy sant yàlla suñu borom di ko sant sëñ Touba Xaadimu Rasuul moom mi nag ñun ñu amee ko ak cant bu baax a baax lim def ci yoon wi liñ ci lim ak liñ ciy wax du jeex du xaaj waaye lépp njariñul jaam yi la rawatin nag ñun taalibe yi kon cant googu moo ñu fi dajale tey ñu ciy def luñ mën ak luñ mënut di fexe nu mu gën a sellee nu mu gën a rafetee ñu koy ndax moom moo ñu jàngal màggal xamuñu lan mooy màggal ba noppi teg ci leeral ñu ni ñu war a màggalee kon nag bu bésam ñëwee loolu dina war a yomb lool sëñ bi nag moom it xam naa am na yéene sant dongo yi bu baax a baax ndax mbooleem lii ñu fi def te ànd koog moom donte moo ñu dimbale xolam da ciy seet ndax dimbale jaam yi moom it mooy ab liggéeyam kon bu gisee ñu dimbandiku moom it xolam da ciy seet ndax ab mission am day daal di bokk ci li mat kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax te yem foofu di jox jëbbal sëñ Omar Ndiaye kàddu gi ba ci kanam incha allah. bisimilah barke borom Touba kon ñoo ngi ziar waa Istiqama TV yi nga xam ne ñoo def ay jéego ñëw fii ci barabu sëñ Muxtaar mu sëñ Abdoulaat comme niñ ko defoon daaw ñoo ngi leen di ziar ci taxawaay boobu di leen uh, ndokkeel ci bis bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy bésu sëñ ba si Sëñ Abdu Lahat nag moom murit ñëpp ko bokk ndaxte moom Sëñ Abdu Lahat moom la mu waatoon ndax dafa ni woon dama ni maane te bu ma ne maane moo ne dootu ci mën dara moo tax mu bëgg a wax tey lu leer loo xam ne bu ëllëgee kenn du lii la bëggoon a wax mu ne maane fii ak ma di ko yëg Sëriñ Tuubaa rek laa fi nekkal jox naa ko sama dund jox naa ko sama dee jox naa ko sama yëngu jox naa ko sama dal ni mu ko joxee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom moo bind wax ni billahi lazi laa ilaha illa huwa xayaati wa mamaati wa harakaati wa sakanaati maa sayduna muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ne moom it noonu la ko defee kon nag kooku moom fa mu ne ñëpp xam nañ ko te loolu la fi nekkoon ba ni mu fi jógee ba ñu ko noppee gis kon nag bu bësam ñëwee bësu murit yëpp la ndax borom tubaa mi nga xam ne moom mooy murit ndax moom moo sos yoonu murit te ku ñuy wax murit moo tax ndax sëñ Abdoul Ahad murit amul aw tur la sëñ Touba jëmm ji borom Touba moomu moo waxoon ne am naa ci moom yaakaar te yaakaar jooju nit ñi nga xam ne fekkewuñu borom tubaa te fekk sëñ Abdoul Ahad ak néew xam nañ ni yaakaar ja mu waxoon firndeel na ko te jëf na ko jëf joo xam ne ba keroog ñu lem dund yi dara du ko dindi bés bu ne dañu gis lu ko gën a dëgëral kon nag bésam bu ñëwee murit yëpp ko bokk kon nag bu ngeen jógee yéen it ñëw ci sunu sang bii di si Muxtaar mu sëñ Ablaat mënuñu lu dul dolli leen ci ak cant di jottali ni ko maxtar waxee amul dara luñ ci sof lu dul rek ñun benn euh, xam ne fa sëñ Ablaat tegoon tànkam bi wóor nañu ni moom la sëñ moom lañ teg moom fa la teg tànkam ndax fa sëñ Ablaat tegoon tànkam weesuwul xamul jëmmam xamul yitteem xamul lennam lu dul lëf li dul ñànq ak liggéey liggéeyal Serigne Touba ci donge yi sëñ Muxtaar mii it loolu dong lañu xam ci moom xamul jëmmam xamul yitteem xamul dara soxla donge yi rek ko ñor ku ñëw mu dimbali la yërëm la teete la ba ba ba ba nga gindiku dimbali la kon nag la sëñ Abdoulaye nekkoon loolu rek ci la nekk. kon nag mënuñu lu dul ñaanal ko ci loolu di ko sant tamit ci taxawaay boobu nga xam ne nii su ko defuloo ni du tee ñu ànd ak ñoom ndax buñ ñu defoon ñun di ñu xamba ko jàmb sax dañuy ànd ak ñoom ndax ñoom ñooñu moom ñun alalu sëñ Tuubaa lañ kon nag bu ñu dimbalee ci loolu laaye biirañu ci di ñu dimbal saa su ne ñuy gën di dolliku di gën di sàññ si sëñ Tuubaa di gën di yokk te mu te te mu ñu ci jiitu ndax ko xam boo ñëwee fi nga koy fekk boo booy dem bàyyi ko fi ku ñëw mu teete la laaye biir la dimbali la te loolu bu ko ci fekkutoo nit du tey ñu topp leen kon nag ñun ak cant googu rek lañu am ci ñoom te loolu ku ne mën na koo jottali di ñaan loolu doon li nga xam ne ñun donge yi moom la ñu wax ak moom di ñaan na ba si bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu fekk ñu yàgg ko fekke yàgg ko fee fekk Sëñ Tuubaa di ñu ko dooleel gaa su ne lu ñu mën dën ñu mën lu ko ëpp te Sëñ Ablaat daf ni woon moom Sëñ Tuubaa amul tànk yi gannaaw tànki kanam rek la am te moom moo ñu waxoon tamit ñun ni képp koo xam ne moom mu ni moom amul xarit amul àndandoo sëñ Ablaat moo ñu waxoon loolu mu ni mi ngi ànd nit ñi rek nañu jàppee sëñ Tuubaa la leen di jàppee sëñ Ablaat moo ñu waxoon loolu te sëñ Moxtaar mii it wóor nañu ni foofu la taxaw ndax képp koo xam ne nii ànd naa ak yow sëñ Tuubaa tax mu ànd ak bu lay mere bu booy gis mere mit ñàkk jëfe ndigalu sëñ Tuubaa wala luy waral sëñ Tuubaa moo tax nga koy gis loolu moom mën nañ koo seere ñoo ngi sant bu baax a baax tey jéggalu ci lu ci dëng tey jéggalu guddal gi tamit ñu daal lañu amal lu ñu ci dool jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk julli ci tur suñu muxtaar mu Cheikh Abdoul Ahad di moom rek du kàddu yu néew noonu yàlla dafa noo boole woon ak moom ci boole gi boole woon Cheikh Abdou ak sunu maam Cheikh Mouhamadou Bara Dione yëpp xam ko moom kon fii ñun sunu kër la waaw kon dul fi gan moom noo jàpp-jàpp koo xam ne mën na koo sax wax ci làmmiñ waaw ñoo ngi sant yàlla baax ci loolu no ñu ñu ñëw ci bis bi ànd koog moom waaw maag sama rakk ji sëriñ bay jëm ak sunu doom yi ak tali bi ñu ànd yëpp waaw sëñ Mataar moom ngi koy sant te di ko gërëm te di ko ñaanal taxawaay bi yàgg te di ñu yàggoo jëf ñu yàggoo ànd ak moom taw ci bi Cheikh daal ci ngërëm moo si woon waaw ñu koy rafetlu bu baax a baax daal waaw te te te tey sant rek te ñaan mu yàgg daal loolu yëpp ci doon ci kàddu di seen Omar wax dëgg sëkk waaw jërë ngeen jëfati waaw yéen seen taxawaay rafet na noonu ñaanal suñu barke liggéey bi te di ci naan tawfeex barke Borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ak sa ob laal jërë ngeen jëf aleykum salaam wa rahmatullah yaa daafi al aswaay wal akdaari bil Mustafa ay murit lañu